bu Sonko demul mu jàppale un de ses candidats. par exemple son approche. un de ses yi nga xam ne fooguñu. xam nga xam nga loolu mooy ara loolu mooy loolu mooy li naan en arrière. loolu mooy mais Sonko da depuis mu def politique mosuma gis mu jël décision song li arrière mi def plan B moom day mbëkk miir bi rek daanu à sa place. je sama jabar dafa may indil añ mooy yónnee ko jox ko ba def leen déclaration nañ jàppale diw l' essentiel c' est que na Pastef jël pouvoir bi ressource nañ Pastef nañ jël beneen beneen récépissé ñun Ousmane Sonko nee nañ voteel euh, euh, Mout Bane ne ko ñëpp voté l' mooy nañ créé benn benn benn changement ni bu deuxième tour amee Sonko ki muy jàppale la donc jàpp nga ne du jàppale kenn. c'est pas son te te Pastef du am beneen. candidat c'est pas c'est pas le style de l'homme non Pastef du am beneen candidat. Pastef existe wul amul amatul. ex Pastef euh, ou tout ce qui en découle euh, parce que Ahmed Aïdara a lâché une information <coughs> euh, nee na ñoom waa Pastef dañuy wut deux parrainages ça veut dire peut-être qu'il travaille sur deux deux candidatures. mais Pastef amul du ma dugg ci débat boobu Pastef amul. comment ça Pastef amul. ah Pastef non mais non mais. mais soit dañuy dund ci dëkk moom te am na loi ak règlement soit ñu xam ne vraiment république bananière la ku nekk def lu la neex autorité jël nañ décision dissoudre ko. l' autorité bi dissoudre Pastef elle est compétente pour le faire wax ma beneen organisation bu ñu bu ñu ma nee ma nee ma ah, Sonko ah, jàppale Guy Marius Sagna wala mu jàppale. mu mu euh, mu voilà mu mu mu euh, euh, ñu teg beneen coalition wala mu jàppale keneen ak keneen ak keneen. non ñu teg beneen coalition. mais avec mais xam nga coalition da nga naan da nga naan élection présidentielle on désigne un candidat ñu teg kan ñu teg Diomaye Faye wala Guy Marius Sagna. wala wala wala Birame Souleye wala wala wala El Malick mais il faut aller vers ça. man bu ma demoon Pastef damay def le tour bu ñu jël Diomaye bi nekk ci kaso bi laay investir pour susciter l'émoi et puis nit ñi yërëm ko ndax sénégalais sénégalais yi <laughs> ñoom malheureusement ñoom vote vote émotif la ñuy def et xol la ñuy demee quoi dañ lay yërëm votel la nga am doole ëllëg ñu xeex la. alors tey